la la Allah. التخرج yàlla mën na ko yàlla defal. waaleykum def bis boobu su ko bis bi jotee da nga koy yóbbu des kilifa ndax sa kilifa yaa ngi gis ni mu amee bis bi sa bis boobu jëf ji si jëf boobu wala nga sa bàmba yow nga ko si dara boo leen koy waxee rek loolu nag ko ayee moom moo set du naax poos bu fees du naax yaram bu wér du naax léegi ni ñëw naa nga waxtaan ak seen booy laaj leen lu dul dara daaw ñu fi tey jugee ko ak lu bare bare bare bare bare tey ñi jumaa ji am solo fekkal bu jaaree ko kon bu fi jógee leen war leen bëgg yàlla te jaamu yàlla te mooy bakkan ak adduna bi ci biir mënees su fee ñàkk dund mënees su fee ñàkk dundale waaye dañ ko def sama yoon maa ngi baal ñëpp ah ñu jëm yàlla di baal ñëpp ay sant mbooleem koo xam yaa ngi janaay taamu jullee ji way nas te yàlla tax nga fonkaay yàlla yàlla sa dikk ak sa benn ba ci kanam nag jii fi jóge muy weeru koor li mu ëmbal lépp tey gis ëmbal ko tey gër yàlla bu dara yàq fekk ñu fekk yëpp bi lay si nam ko soli sa dosara dañuy jiif ñi ci teg yëpp seen gën a ñu ngi leen di seet kenn par kenn bi may ñëw rek da nga ànd ak monsieur maire bi ñu ñëw ñu jataay benn délégation ñu sunu maire son ngoor bi monsieur le maire waaw ñu ngi seet bu baax a baax def lu muy ci moom waaw ndax daaw fi am daaw fi am te ci kon day jëkk waaye bokk wàllu ci woon ñoom kon benn ci boole ñu te ngeen encouragé ngeen liggéey liggéey boo xam ne soxna war na ko yëg maa ngi leen di ci loolu noo bokk quartier koñ di dem leen di diggante bi dara bokkut ni koy man waxee ñu jàpp li dafa nekkoon ëpp yoon ñu ko xam ko teg di yéen a ko ngeen taxaw ci ci yëngu yi yëngu yi dëkk bi soppeeku nit ñi yëg leen leen yëg leen kii ñu koy toppoo kii bu koy soxla te yoon dox ko na koy doxee jot te baarante yi ngay bàyyi kii bu kii bu kër kii bu nangam bala nga cay jot dem fa téeméeri yoon boole ko dinaa ko soxla fa nga jot saa waay jeex ci réew saa waay jeex ci réew te loolu tax lay nekk les rek góorgóorlu ñu leen di wax ñàkk suñu ñàkk bi moo tax ñu jëlee fekkee kon nag sonnoor ji yëg ni am na gan waaye gan bi liggéey na loolu moom mooy li nga xam ne maa ngi leen di ci yoon yi muy ci marché yi muy ci pétrole yi muy ci lépp lu ñuy def loolu yéen a wax ni dox leen não ko wax ni loolu la àdduna yàlla leen yàlla defal la bi lay sama def sol di sant waa sécurité bi ñooy gërëm bu baax ñu taxaw muy ñëw jumaa ci di gërëm seen kilifa lu ñu jël bi ñu def julli fay faat dafa jël tànk ndax julli fay faat benn rakka bu nekk fukki inaan sala juróom la fukki inaan dina ak posal juróom dina ko fàtte doo ko def ñeent rakk def benn sabal ci biir am na ci oto yoo xam ne dañuy suñu paradis ba bu ñu ko ba mu wër loolu la ñoom ñi nga xam ni seen kilifa yi ñun danañ def yeneen rapport si bi waaye ngeen di leen sacrifier jaamu yàlla yi ba loolu mooy nekk moo tax comme ñoom dañ day wër baat bi loolu wax na loolu yàlla yàlla dëgëral leen muy waa police yi ak sécurité bi yëpp ñu àndal wasalaamaaleykum wa rahmatullah wa barakaatu ak tey moom ko léegi mooy maa waxee koo génne laa dangaa ñëw loolu gën a ñaar koo xam ne ko ko laa ko وإن لا يمنع ولا سبب yàlla ci day day jël te ànd ak benn te ànd ak kàttan te ànd ak man bi ay sii dama dox wàllu sa sa di sant organisation yi wàllu pay yi wàllu wane yi yëpp yàlla yàlla def leen am ndax ba dina nas yow ñu tuddee am ñu xam ne wala tuddee am ñu xam ne ومن كل عسر يسرا ومن كل فائدة يسرا وعلى كل خير سريع